Mabuti ako na ni. Wow, sa bumbang. waaye doon nante nante lu quoi di jéem a xool mais daa mel eh, les les les les nœuds là ça commence à hein le gars il a sérieusement besoin de... Hein? des binocles hein? ça ça ne va plus là ok comme nous encore. Tay waxtaan bu gaaw la rek si sama ñu xiti xam ngeen rek comme que c'est noël c'est christmas on va se faire un waxtaan de noël un waxtaan de christmas ah comme que ah gaay moy lo difete da ngeen di insa insa maria comme nu ngeen ko waxe Esa eh, Maria ak nangam ak yooyu mooy loolu on va fêter ensemble yàlla ma gën a xam léegi daal man comme nu ma ko waxee rek c'est pas méchant c'est pas méchant pourquoi c'est pas méchant mooy seeni wax rek lan leen di laajaat lu wax la ni laajcewaat lu ngeen di affirmer wala lu ngeen andi di proposer le lu ñu leerlu donc c'est pas méchant ah man de su nekkoon ay comme boog saaga ngeen su nekkoon ay saaga la ñuy yaree nit wala la ñuy nit comme de man dëppu puna. su nekkoon saaga duñ diplôme wala nu war say décorer nit fay si nit ah man de xam naa fan la sama diplôme di dem ak ñan laa nar a décorer wante nag lan moo ma jaaxal ak lenn rekk moom mooy loolu ngeen ñëw tey jii nii toog boobu ba léegi di ko défendre pare koo saagal pare koo layal pare koo taxawal fu mu leen neexee nu mu leen neexee ah si loolu leen leen laaj ay laajte yu sew tuuti yu tollul nen di si xaar ay tontu yu ñëw ak njëkk ak teraanga waaye nag amaana dégg-dégg nu kajoor ak dégg-dégg nu bawol xam naa du nuy weesoloo wala du ñu weesoloo wala du ñu ànd mais mbir yi doy na waar su ko defee. man damay dégg nit ñi ci saaga yi laay tibb tey di ci analyse di si analyser maanaam nu siy jéem a waxtaan di jéem a xool nu mu fa taajoo noonu wax noo booy bi dafa kii nangam tàndeem booy bi di kii ki nangam tàndeem ñëw bëgg saaga sunu kilifa diine yi sunu mag yu baax yi loo xam ko lu muy xeex ak lu muy kaas loolu moo ko jiitu moo ko mag wala loolu moo ko fi kii nangam ak sàngam ma daal ne ah damaa jommi dama waaru am samay nopp leen ma aal wala dama kaa able comprendre ma fa deme fii lu nu fekkeewul rek leen fi yàgg waxtaanee di lu nu mësut a fekkee leen ñuy waxtaanee loo fekkee dangaa gis nit ñi di ko waxtaane dangeen a mus a gis su ñuy waxtaanee lu nu fekkee ah daf maa xawoon na jaaxal mën a man yenn saa yi daa ni man maa doppooral wa ilaa ñii di wax ak man ñoo foog ne ni que damaa doppooral wala ah du ne nag ñoo doppooral balaa ñu siy gis seen bopp damaa xam ni que xew-xew si instantane lu xew léegi ni nit ñi tal ne leneen lu du di ko waxtaanee tal ne noo jeew anam di ko waxtaanee mais lu nu xas bay waxtaanee mooy jàll nag quoi am de te fu ñu koy waxtaanee ñu koy waxtaanee ñëpp fekkeewu nu ko di àdduna noonu lay doxee léegi suñu demee ba nu nekk si àdduna di doxee ni ko àdduna di doxalee ay nit naan ñun waru noo doxalee noonu ko ñoom ñoo yor seen doxalin te mënunoo expliquer seen doxalin si nan lañ koy doxalee doxalin bi nag daa mel ni que nag doxalinum Ah, doxalinu lafañ sax jak na quoi mais nekatul doxal ñu la jafañ euh, lafañ meni da melni doxalu ñu jaan luy wallaxu li day wallaxu quoi man nak may la ci mané man ci ban réew la nekk tek ban jamono nit ñi du ñuy ñew tok di wax lo xamné ne ni ko ñom da melni suñ koy génné seen gémmiñ gi duñ ko déglu ba paré wala xolaataat ko wala xolaat ko bala di ko génné ma man doy na waar yenn saa yi nga toog nga dégg kenn tëll fële yow Moussa dinaa nii sa ndey dinaa nel sa ndey sa kii ndey naa ko def nii sa kii ndey ki nangam ma ne ko man dama jaaxle yow doom nga yaakaar naa soo jàngul ekool xam nga àdduna xam nga ni que pour mën a defar doom foog mu am lu xew loolu noonu xew mooy àndi doom léegi yow soo ñëwee ba nga toog nga jàkkaarlook nit di ko wax wax yoo xam ne ni que yow sa ndey sax yow ba mu lay jur yow noonu lañ ko def sa ñàkk fayda la est-ce que yaa ngi comprendre ma ne après may toogaat ma ne nu sommes dans quel pays là sa ndey su ma ko jàppee dinaa ko def nii ok mais yow balaa ngaa yóotu di jàpp sama ndey wala di japp ndeyu keneen yaangi ngi sa nday ku koy protéger amna benen beneen doomaraam tamit bi yottu sa nday di ko comme nu ma la ko waxee rek et eh, maintenant mané mé je ne comprends pas man damay laaj sama gaay paske, parce que comme niko sama mbokk séeréer yi di waxee tiaxan faaxé tiaxan faaxé comme boog deug gasi xawma gassi gasi wala ar mu na Mais on doit s'expliquer quoi. J'y comprends rien. Souvent, je me dis que je suis en train de péter des câbles dans ma tête, que c'est moi qui suis perdu dans ce monde. Mais après, quand je me ressaisis, je dis non, c'est le monde qui va en couille. Quand j'entends certains parler ou bien certaines positions. Oh non, lu ngay xeex moo la mag ay siècle jiitu la fii kii ah non yow sa kii nangam sa ndey ki nangam ma ne mais yow fii daal man lii kenn xamul lii lal la léegi nit kuy ñëw nee na moom day faj xamadi moom xamadi la ñëw faj si quoi ñoo xam ne ñoom ñoo neen ñoom xamadi bi lañ ñëw faj si tontuwunu si ñëw andiwuñu explication ku ñu ñëw wax si kooku dafa xamadi kooku booy boobu moom daal lañ ñëw faj si parce que ah. foog mu yaru xam nga kooku foog mu yaru parce que dafa xamadi mais kooku noonu ñu ñëw yar si pour def ko mu daal di yaru ngir xamadeem mais kooku nu ngi koy yaree mooy lan si xam si waxuma la sax xamadi de si xamadata ci xaw ma xamadati wala xama doppooral ati si gën a dopporal si gën a kon te ñoom kooku noonu sax nu naan dafa xamadi su saagee ba saaga wala su wa su defee yëfu xamadi ñoo ko si puus ngir lu muy def mooy la laajte nee na laajte aayul dëgg puso la xale dina ko for mag dina ko for ah danoo ne seen tut asamaan jarul buuxante téenal xale tamit su téene du gis na gis de jarul njool jarul mesurement jarul kii mais nag yenn saa yi nu nax la naa la xale su toog mag dina toog xale taxaw mag di gis lu xale dul toog ok d'accord mais yow soo toogee mu taxaw ngay gis lu nga du gis mais xale bi tamit su sëggee lu muy gis ci suuf yow tamit est que di ko gis lu mu mën a for mënoo ko gis xale dina jottali mag xale day jottalil mag da gis mag yu dem ba nga xam ne que sëgg mënuñu ko suñu dara waddee wala ki dana ni woo addu kay jottali ma lii soo mënee sëgg soo mënee dem sa gël dem sa ndiggal a ci yow sa gël ñun leen jàppee ay cons on nous raconte de la merde et nous on est là et maintenant nous on pose des questions wax bi dafa dëgër dafa xamadi booy bi dafa réew dafa qui ki nangam boo léegi yéen ñii réew suñu réewande wala ki nangam si nan ngeen ko bëgg fajé si gënnoo réew mën na leen yéen seen réewande bii ngeen ko nëbboon doon xaar occasion bu ngeen ko woné wala fu ngeen koo génnee rek pour coller ko motif wala xool kii mais daa am ñoo xam ne daa am loo xam da leen di xasen bu yàgg nu koy xool nu ngi koy tegee da ngay am gelu caga mu nekk doomu xaraam bëgg laa tromper dem def ji leneen wala kii nangam mu moindre occasion bu muy def pour kii ko motif nga koy jox mu dem def ko su ñëwee mu ne la ah kii nii nangam yi am si kii wala leneen ak yeneen y a trop d'occasion ay doomaraam yoo xam ne ni ko motif wala doomu xaraam tàppet boo xam day bëgg wax dara di mandi mandilu xaar naan benn kaas mandiwul de daa xeeñ ñëw taxaw eh, bëgg a profité xoolal foofu noonu zëmbale alentour bi yëpp yëngal wax ay affaire am fekk yëpp am nañ xam nañ y a beaucoup de façons de faire les choses ay doomaraam ngeen mais nous xam nga le problème mooy ah, en est que instant ñun fu ñu topp leen walu loon topp parce que lu tax fu nu topp leen walu loon topp mooy nit daa teg sareetam ba pare war fasam làbbali ko fas ba war a dem noor far mu gis mbaam mu jàmbu di dem pénk mu topp mbaam ba xam nga ni ko caapri laaw wut andu boo wàcc dem and jàmbur fekk boroomam toog donc sareet boo tekki tamit dem si sareetu jàmbur fekk fa boroom sareet ba déggoo ma de sareet boo wàcc dem si beneen sareet fekk fa xoolal borom sareet ba léegi soo làbbalewoon jël gauche nag moom mu làbbali jël droite bàyyi faal soo wàccee sa sareet jéeg si sareetam droite nga jëm donc yaa yaa yóbbu sa bopp foo jëm léegi ñun ñu nekk si dëkk boo xam ne ni que comme nu ma koy waxee rek nit ñu baax ñi mooy nit ñuy saaga mooy nit ñuy dóore mooy nit ñuy ree mooy nit ñuy wax yu amul preuve mooy nit ñuy sosalaate mooy nit ñuy gisaane maanaam toog xool la daa dina yow safara nga jëm yow alagu nga yow di nga dee wala yow dinaa la yàq nit ñoo xam ne mënunoo taxawal topp kii mënunoo taxawal taw mënunoo ne tawal mu taw mais nee na dinañ yàq nit ay doomaraam ñooñu ñoom ñooy dem àjjana ñoom ñoo xam àjjana gi fu mu ne ñoo xam caabi àjjana gi nu mu mel yàlla won na leen ko ñoom ñoo ñàkk jom gént àjjana dem ba si àjjana gi dellu si waat encore ximbaliku ñëw jàkkaarloog nit ñi ngir ñàkk jom mais nuñ nag ñun ñooy con yi mais comme moo ko le Sénégal c'est magnifique ma ne man de su tëddoon gént ñu yóbbu ma àjjana ma nekk biir àjjana kuy nam ma yeewoo déggoo lu ma la wax de su fa yemoon mu neex maanaam dinaa xàmme àjjana mu leer maa ngi àjjana yeen say ma gént mu neex lool bu suma yéwo xamni xam neex na yee yee du ñuy gént mu neex lool nga yéwo xamni ni neex na yenn saay nga ne oh lu ma yeewu yeen say nga bëggal tada yeen say sa nga def musiba ba ci calçon ñu moy lool nga xamni ni xolal si gént bi nga ne oh comme suma agone àggoon àjjana nan lay demee guma may deete waaye may gént nag mu wóor mu biir ma ni que fii nu ma dugal nii maa ngi àjjana quoi may waane naan damay yeewuwaat ñëw toog jaakaarloo gars yi naan waaw diw wan na ma caabi àjjana dem naa àjjana kii gis naa àjjana jaxaran xanaa kon kooku noonu yow ñu ngay waxal man foofu laa lay fekk dama lay duma moo tax souvent ma koy wax ma naan gars yi ngeen di gis ñuy daanu leer si ay jàng yeeg ak affaire yi naan daa daanu leer ma ne leen xaale leer yooyu noonu ñoo leer yoy dina len wacc di ngeen xam ndax ay leer la wala ki dina len wulle wulli wulli ba ngeen kadaafare sen lox parce que ay yónni yalla len di yoon yow ya leer leeru lay duma tooga di ko fa xaar comme nak yu reccion yoy ngeen di wax nan excusez moi nak yoy non reccion ngeen di do no ñewon jébbalu si non non la leer yi di ñewé da ngay gis kat bi jang ba bir jang kat bi jang ba ci bir nit reccé feulé ñëw ndulli ko mbëkk affaire yi rajaxe gars yi toog naan ay day daanu leer fekk yàllaa ko yónni daal di ma ne xoolal si faayal ma ko tuuti si faayal ma doomaraam bii tuuti kii lu muy wax ëpp na ñëpp toog di seetaan ku leen gën a jege yàlla mooy jóge fële ne përier wulli ko bàyyi lu neex ni si wulli nit sa yaay su la toogalee ceeb bu neex da nga koy dóor sa yaay su toggee añ bu neex nga añ ba suur ceeb bi neex da ngay def dóor ko ngir daanu demal nga dóor ko ngir daanu yaay ceeb bi neex na soo paree nga dóor sa baay tamit daanu leer papa dépense bi mat na boobaa sa leer mat kom ko affaire yi su neexee da ngay dóore sooy daanu leer affaire yi neex ba ëpp da ngay dóore mooy loolu sa jabar su ku ŋaayuwee ay tànkam nga dóor ba daanu waxuma boo waxuma la sax leer lu raw leer ngay daanu dangay ngay daanu ba mel ni mbonaat soo paree da kay koy dóor du da ngay ñaan rab yo léegi nu toog di wax waxu yàlla foo xam ne ni ko loolu kii yow nga ne dangay ngay daanu leer di dóore yow toogoo sa xol seddul yow kontaan yow da ngay dóore seddoo yow nag da ngay dóore leer toog leen foofu noonu di xaar yàlla dina loolu ay ay ay ay kii la ay ay cas cas ay kii yu ndaw la cas gars yi loolu la pëm pëm pëm mbëkk dóor kay kay gars yi ne jàpp leen day daanu fekk xoolal fu bokkaale bi. ngeen foog ne turu yàlla dañ koy fooye wala affaire dañ koy tey di ko fooy xaar leen attendez moo tax ku nu wax mu tëb kii nii nangam waay te ma lu ma si gën a jaaxal ay clochard de rien du tout ñoom ñoo fi nekk ku wax nu sax bëgg défendre benn affaire boo xam ne ñoom mënuñu laa expliquer la tête et les pieds les armes de cela ils ne savent pas de quoi comprennent rien mais il défendait parce que lan nee nañ mooy héritage quoi ñoom il se il se il se euh, nous ko waxati il se trouve en obligation de protéger quelque chose quoi ñoom ñoom ils sont les chevaux de la protection culturelle wala xawma lan te aada bi ñoom lu ñu tàmm si aada boobu nu wala protéger ñoom wala si affaire bi mooy lan moom mooy dem topp sëriñ yi ñoom seen culture bi suñu aada dëggantaan ñoom nee naa la ñu si bëri xamatuñu lan mooy suñu aada ku si n'ek yo lu nga cosaanoo xamoo ko <coughs> ñoom la seule chose qui est kii mooy Nous fen nous nous nous expliquer ay fen amul amul se donnent la mission de protéger ces mensonges gars ils sont prêts armes à la main de les protéger le pays, venez, protégeons le pays. Non. Protégeons nos ressources. Non. Protégeons nos enfants, ce qui, ce qui signifie le futur. Non. Protégeons notre culture. Non. Notre langue. Non. Protégeons. Non. Mais allons protéger des vieux menteurs. Allons se faire un bouclier pour protéger leurs mensonges et les rendre riches et les donner le gros ventre. Les rendre fainéants. nit ñu tam ñu tàmmul coono du ñu àtte dëgg suñu kilifa diine yi tàmmuñu coono nan la ñuy àttee dëgg gars taxaw sa am na si man damay tax sa yenn saa ñuy taxaw naan di ñuy taxawal julli taxawal julli sax laa la wax cinq ventilateur tiim leen cinq vent julli bi sax bëgguñu say ñaq julli bi mën damay xool nu ma naan mais mais léegi yéen seen àdduna lan moo si coono quoi léegi c'est c'est quoi le problème là Julie 5 ventilateurs, bi si kaw bay fii bii fee bay fee kii nangam kii taxaw wax sa pour moi que micro bi du nga tek ba si gim ñu say du jiite la sa nga ne mais ki saa waay est-ce que wax na sax dara kii nangam kii on comprend plus rien les gens bàyyi mal c'est quoi c'est quoi le problème mais ñooñu tane neen dara jëlul ndam bi mais sama yenn gars yi nag ñoo xam ne ñoom sax nee na ñoom dinañ jàpp dinañ julli ñoom gëm neen ay affaire yi ñooñ ñoom si biir am na ñoo xam ne ñoom ñoom ñoo jël ndam mais borom julli one minute yi one minute trente yi borom këpp-këppal yi man gars yooyu noonu tamit souvent je me pose des question dama naan saa waay dama suis assi ak saar yu gën a ndaw sax ma jéem a xool ndax ñaari ràkk kii nangam calculer une minute trente secondes ma ne non sama gars yi arrêtez ces ngay boo xam ne ni muy lalee sijaada bi lay kàbbare day bi day lal suuf nga gis loxo yaa ngi sa kaw allah akbar allah akbar allah akbar allah saa waay en moins de cinq minutes six minutes nga romb mun na la fay na tisbaar takkusaan timis moo ngi di romb gée moo romb da nga naan sax mais bon bon ok yàkkamti c'est comme si c'est une de leen forcer c'est une obligation saa waay yow daal maa ngi ñëw wax ak yow mais xol waaye xaaral ma jooju ko fi quoi alors mais ñaan bi sax souvent ñaan bi moy gëna yag yàgg bi amna seen si yenn ñaan bi moy gëna yag yàgg suñu paree ba tok nag pour ñaan nag beneen la nii nag taxaw nak lu mu soxla lepp dinañ ko si def mais bu ñu walé taxaw jàkkaarloo wax ak ma allah akbar allah akbar allah akbar allah akbar asalaamaaleykum asalaamaaleykum balaa am ko allah akbar dama allah akbar on ne comprend plus rien dans ce truc moo tax ma ne tey man damay ñëw def benn waxtaan boo xam ne man damay ñëw laajte teg ay affaire wax laal ñëpp laajte taalibe yi seen saaga yi wax yu ngeen di wax mais tamit sama gars yi tamit xam nga un moment aussi on a qu'à être un peu sérieux xam nga si on veut qu'on nous respecte aussi soyons aussi un sérieux si les chose que nous faisons na ànd ak kii quoi na ànd ak fulla tamit quoi julli bi nañ ko jox àqam na ko gars yi di ko jox wàllam xam nga teg ko temps di ko kii respecté ko jox ko mu ko wala moo gën këpp këppal yéeg mel ni que du leen forcé du leen sexal lem wala obligation forcé ki nangam eh, balaa maa dee nu jàpp ba pare nee ne noonu man ba yàlla bu nu ma rey kenn xamul lan la yow yaa ngi kii ni ba pare raxas sa tànk sa tànk ah. sa tànk laa la wax moom de sa tànk nga pare jël si ndox mi imaam yi man tamit boobu dama koy laajte dama xamul ndax lool lu lu ñu digaale la wala kii man nag loolu kenn jàngaluma ko woon ban may jàngal jàpp ay affaire de kii ki nangam mais j'ai vu beaucoup de gens le faire et après un moment j'ai même failli le suivre par tendance wala je ne pas mais man je ne comprends pas moo tax tamit imaam yi eh, yéen nga am ko su ngeen si mënee waxtaan tamit waxtaanee si nuyu gi booy xam quoi parce que je comprends rien kii jàpp kii ba pare xa sa tànk kii ba pare kii jël si ndox ba oh, oh, dugal nga naana la jox ashadu ashadu je comprends pas je comprends pas quoi waaw parce que loolu soo ko defee am na ñoo xam su nga xoolee c'est bokk te islam comme ma ko waxee rek religion bu noobul la affaire set la affaire kii la quoi noobul la mais am na yoo xam ne soo ko defee ba pare c'est comme si yaa Il y a d'autres signes derrière quoi et d'autres choses qui viennent avec tes tanks doo raxas setal sa bopp xam nga te ñëpp xam jàpp set raxas hein, raxas commencer def xaaj-xaaj ñëw commencer raxas ko wacc souf so raxas japp benn benn so jappé benn benn bo wacc lepp donc mooy soobe bi foog muy wacc léegi yow nga def say affaire yëpp ba paré ki wacc wala jëlaat encore si sa tank sex si sa gémmiñ man loolu laa comprendre jëlaat si sa tank

Sauter des choses yo, xam ni que xam nga c'est ça n'a pas lieu d'être quoi c'est pas important c'est pas un truc boo xam ni que laajte nañ ko fofu c'est à ça, c'est à sa place quoi xam nga laajte encore si ndek ak teranga balaa gars di la yoba am nga gars ñom ñoom su la ñuy baña a dégg sénégal Sénégal laajte dafa risqué kuy ngay parce que c'est risqué le terrain est glissant les choses sont truc truc truquées les gars font les esquives les magas sont catastrophiques les les annuels sont annulés Hein? les caisses sont vides, euh, euh, mais les cotisations sont relancées. Tout dernièrement, j'ai vu les, pour les académies et les centres de recherche encore. Hmm? Voilà, cotisation sur cotisation sur cotisation, mais pas de finition Jamais, jamais et jamais. Ah, nous, on finit nu jël sàcc xaalisu nit ñi dugal ko si waaw instant gi moom waaw depuis l'an kalaa kalaa hein ban fi am na fi ñoo xam ne ban ko fi inauguré sooro sooro ab sooro leen fi inauguré sooro bi ban ko fi inauguré boobu seen après inauguration ab jumaa la kat mais xam ne lépp nu mu fa demee fii la nu fekk fii nu fekk ah waaw loolu du lu nu di nekk léegi loolu fii la nu fekk ku naax naax waaw loolu de waaw moom leen fi gis yooyu te kenn xamul lu mu jëriñ dëkk kenn xamul waaw mais ça bii moom lu wóor ba wóor on attend aussi hein, maa ngi laajte encore les bras en haut à la justice sénégalaise pour euh, on sait que c'est une justice qui a des tendances suicidaires parce que c'est une justice à même pas double vitesse, mais c'est une justice à sept vitesses. Et quand une voiture a si, si de, une côté, tellement de vitesse, ça veut dire qu'il y a beaucoup de chevaux dedans, quoi. Ça court. sommes une justice bi Sénégal moom lu muy daw kenn xamul lu muy daw justice bu bëri doole la doole bi nag doole bi daa ñu ko moom yaa ngi comprendre toog bokkuñu see kenn xajaluñu si kenn ku nu newul yaay sa bàyyee diw sa maamay diw sa nijaayee diw bàyyi faal xamal koy tooñ looy wax na ko xam fooy dugg na ko xam mais pour une fois ñoo ngi leen di ñaan ngeen commencé yee seen bopp parce que tamit nag dëkk bi tamit ñu koy defar si ngeen wala bokk yan la police la et la justice ak l'armée tout cela donc nag Yen tamit da wala commencer tamit faire votre part du boulot commencer à être des gens euh, intègres des gens dignes voilà Boulen deglu peuple bi ce peuple est perdu ce peuple a faim xam ngeen loolu yéen nag tane ngeen yéen suur ngeen au moins de len def yëfu yëfu nit ku sour sa meuna a mais ñi ngeen di top di len deglu. xam nu nu bëgg tantôt nu ne liggéeyoo len. su ngeen jógee bëgg a liggéey nu ne len no bàyyi len. bu leen bàyyi bu leen bàyyi def len seen liggéey Modou Kara daawoo la dem si kaso bi Modou Kara la wuyu kaso da moom bëgg na kay moom mais mais mais mais Sénégal bon léegi yéen ñi di wax génnal si mbed mi ne da ngaa bëgg dem kaso léegi gars yi dimbali la nga dem gratuite génn leen génnal leen génn yow ku bëgg na saaga ba doyal mais après génn soo nekkee Sénégal yuuxul si mbedd bi taxawal bloquer embouteillage wala taxawal ne waxuma bloquel embouteillage taxaw saaga ni ñi ne da ngaa bëgg a dem kaso suba nu yó yóbbul la ndekki suba suba gars du la koy may gratuite fii gars yi lay la man gis naa Sénégal ñuy tooñ rek pour duggu kaso parce que lu tax métti bee métti kaso bi da ngay am ndekki añ reer gratuite même su dee jagaa la bool yaa ngi ñëw gaa yaa ngi bokk si biti nag mooy loolu paa bi añ kese la gérer ak yow ndekki ak reer yaa koy lijjanti reer caakiri la nee naa la may ga luxe la. léegi gars yi foofu la ñuy dem tëdd si jeel bi ñu leen di toppatoo soo feebaree nu fecc ay kii naan am na ñoom dañuy génn tooñaat ñu dugalaat leen ñu du amul ñu génnal mais nit taxaw ne moom bëgg na dem kaso yéen ngeen ne du ngeen ko bàyyi mu dem na ñëw waay Modou Kara daf ko wala ñeme Mourtala dafa wala tëj gatam bi dafa wala neutre da dafa wala jébbal Modou Kara justice su nekkee kilifa la kilifa day def yëfu kilifa ñoom suñu amul lu ñuy bu ñu daw kuy daw mo kuy ku togn ku togn moy daw waaw mais lu daw na ñew justice enquête def na enquête gaay ki nañ ko wo on veut entendre nañ ko médiatiser ça ça doit être médiatisé c'est c'est c'est c'est ça c'est c'est du nouveau c'est du nouveau et c'est à enjoy ça se rappeler li duñ ko sax wala jàngale école après on doit l'enseigner dans les écoles les apprendre à nos enfants c'est important les montrer ni que Fanny, ni la fa demee duul et il y a la loi est au-dessus de tout le monde chacun tout le monde a le droit de suivre la loi amul dem ça doit être un exemple de civisme Modou Kara est lañ ko war def def emblème créer le code Kara on va créer un code voter ko assemblée nationale waaw code Kara 14 18 wala xolal de pénal kii ni nangam tout marabout le tout what the fuck qui va se mettre dans le pays raconter sa merde aura telle sanction point la justice populaire va se lever je vous le dirai parce que pourquoi les gens ont fait les gens sont fatigués et ça ne peut pas continuer nous affamer et nous enfermer dans des cellules jàpp nit di euh, non ça ne va pas continuer ça ne va pas continuer ça va avoir un problème parce que nee Regardez cette tension. Vous croyez que ça ne vient pas, que les gens n'entendent pas, les gens ne se lèvent pas. Restez là-bas, vous amusez. Juste juste à mot comme on calme. En commençant à faire right. Right bi du coup ça » non nous wax commencer la Wow, waaw yow dina comme Assane dem Un de toi nous non right bi moy nu commencer wax lu fi nek tek ko ku nek wax nu nous ko à ku Nous ne la moy l'or. man suma suma ñëw nañ ma faire suma ñëw jaru sax ma ñëw suma paré suñu ça. sax suma ñëw nu ma voilà man maay ñëw ñu tëj ma benn yoon mais ñoom tamit du ñuy leen di lijan lijjanti amul ma demte te ñëw amul ma dem te ñëw voilà amul ay sët leen ay kii leen seen lu nu munti doon seen maam jëlul seen loxo dugal ko si fenn jëlul seen sull yu rooxul yónnul kenn fenn waxloowul kenn ku si nekk ay garant de ses donc lu nu leen waxal ñoom la ay doomaraam leen ay doomaraam leen autant qu'ils sont nag

dëkk bi daa am ñoo xam ne ñii la yellool ñii li yelloolu leen ñii non non non non non non non dëgg ñépp la fi nekkal mu talaa su nekkee kilifa la Modou Kara boobu daf ko wala jébbal da koy jébbal comme Modou Kara moom ba muy jaay kilifte jël ku ndoog daw dugg si biir place bi jébbal ko noonu la walee jël moom tamit Kara jébbal ko l'exemple se voilà nit da ngay jàng Kara le panafricanisme xaw ma Kara lan la kii Kara nangam lii na jël booy moom tamit na nga ko na nga ko jébbal moom Kara moom kii yam du nga ko wala sax xolol médiatiser du nga ko wala médiatiser moom bis bu nuy taal ñëpp ko wala gis nii déglu layam bu muy lay il a fait du mal à tout le peuple donc suñu lay ñëpp ko wala dégg amul ay huis clos yooyu moo fi jeex

what the fuck mais dëkk bi kañ lay dox ñu yore ay te ñoom duñu fay ba pare nu bëri di jur di teg rek ñun suñu milliards yi ñu yore ñu yokk di yokk di yokk ñoom ñu nekk si dëkk bi tamit di yokk di yokk di yokk te duñu fay taxe ils ne participent à rien dans le pays doxaluñu dara léegi moodu moodu bu doon liggéey benn parce que tu comble fukk bi foog nga liggéeyal sa sëriñ liggéeyal sa bopp liggéeyal sa ndey liggéeyal sa baay liggéeyal sa sœur liggéeyal sa nijaay liggéeyal say waa ñëpp yow ku nekk Sénégal sa soo fa nekkee sooy liggéey liggéeyaloo benn li sénégalais bu nekk nekk di Sénégal juróom lay liggéey da ngay liggéeyal sa bopp liggéeyal sa sëriñ liggéeyal waa koñ bi liggéeyal nawetaan bi wala liggéeyal ki sa toujours what the fuck what c'est quoi le problème ñii lan mooy seen problème ñoom ñu tëdd quoi ñoom ñu tëdd ñii xaabaabal téye benn wax rek téye ko foofu noonu di ko taawi c'est comme si woykat bu ñëw ne mën na woy eh, trois minutes son mu ñëw son bi commencé mu ne laa laa bi ba trois ba son bi jeex xëcc ko rek ba affaire bi jeex pare même son bi la lay tegal album bi yëpp mu jug bëgg kaa jaay am si un one million de record bëgg see def xolal disque d'or disque platine disque lépp ñëw toog kookooy kookoo neex di ko loolee sëriñ ñoom benn wax lañ ko tey benn ki sen bàyyi xoma sen mam ki kii nangam fem teg kii langaamu dul tey ko fekk taaw xëc jusqu'à la fin des siècles ça doit partir comme ça maintenant Wa, waxu Serigne Touba ok ça doit partir ñom kenn si ñoom góorgóorlu tu n'entendras jamais dans non ñuy wax di jëm dul di fen xanaa ko waloon woo wuyu ko kay mu wuyu moo gën mu nekk fii nii di dof-doflu si kaw nit ñi bàyyi faal yi na comme nu ma leen waxee nu nekkee si dëkk bi nit ñi ñoo leen si bàyyi nit ñi ñoo leen si bàyyi que lu tax nit ñi bàyyi leen si loolu seen lii ñuy jaay ak seen lii nu nekkee si dëkk bi du dëgg du yoon reewaande kese la reewaande ku leen ko waxul waxu leen dëgg ku leen dëgg da di wax dëgg reewaande dong la nekkee ci dëkk bi xamadi xamadi la nekkee ci dëkk bi emmerde nit ñi retard ñu bëgg liggéey ak ñu bëgg def dara rekk leen fi nekkee fëggay pot tëggi sabar fecc tëggi weñ tàllal loxo ñaan jël ay bant dóoru mbëkk ay tibb saaga nit ñi reewantalu dara lu baax defuñu ko si dëkk bi dara lu baax voilà loolu du leen koy wax te foog nu xamee ko noonu parce que lu tax looloo am seen cant yi tànnuñu benn heure pour def ko xaaju guddi rek leen taamu journée bi yëpp vingt quatre heures vingt quatre heures xaaju guddi leen taamu pour cant ko ba fajar neeneen nit ñi di nelaw xoolunu àll demunu def ko fet si kaw nopp nit ñi la ñuy ñëw fëgg ko ba di fecc non man nee naa ne balaa rek